waaw salaamaaleykum sëriñ bi waaw déglu naa déglu naa li ma yónnee woon mooy kiy wax ci Touba euh, titre foncier de Touba entre mythe et réalité mu wax ci wax ji wax ju bari rek lépp mu teg ko ci xelam rek ak bànneexam ak xanaa ak yëg-yëgam bu xaw a naqari ñeel Touba loolu nag sañ na ko ndax gëmut euh, waaye nag ñoo bokk réew mi mu fàttali ko ne ñoo bokk réew nag war nañu a jàppalante bëggante ci dëkkandoo wante nag. Euh, ak gëm ak jàpp respect bëggal li boobu tamit fonkante yaakaar naa respectante mën naa am daal lim ne nag euh, Touba bu ñuy wax ci titre foncier bi nee na euh, tubaab bee ko joxe te tubaab bi moomu ko da koo ci réew mi moomu ko ba koy joxe loolu it ñu xamal ko ne ñun moomeelu ko sëñ Touba ñeel ñeel Touba du caagi ne ci ab titre foncier lañ ko teg nag titre yi dafa ñëw gannaaw bi te la ko waraloon mooy gannaaw bi sëñ Touba moomeele gannaaw bi ci moom gi moom moom ko moom gu tegu nag ci charia tax bu fekkee nag ci sariya rek la ñuy wax nii tegu tegu na ci sariya waaye tegu na ci dëggu yàlla gi muy sariya dëgg tegu na ci dëggu nit ñi tamit muy moomeel gi nit ñi xam sariya moom li wax moomeel yaa ngi koy moomee ci jaay wala jënd wala mm, sarax wala euh, bu dee suuf nga nga dundal ko te loolu bu dee ñun ay fiq jàng nañ ci hadis yonent bi ne képp ku dundal suuf su dee woon yaa ko moom man ahya ardan mayitan fa hiya lahu wala ayda ardan mawatan ci siixa yi ci ñëw ci xadis boobu kon euh, loolu sur le plan juridique islamique loolu moom bunt la boo xam ne dañ cee saña a moomee euh, loolu nag ci histoire Sénégal ku ne xam na ne suufus Touba bi fi fii Sëñ Touba ñëw kenn moomu ko woon ci liñ ñu jàngal ndax dañ ne dafa nekk ci diggante boo demee ci archive yi sax euh, boobu am na ci ci téere Omar Ba fi mu naan am na benn sëriñ bu nekk ci diggante àllum mbafaar bi def fa benn barak eh, ne mu wax muy mbafaar mooy nekk ci diggante kajoor ak bawal ak eh, jolof foofu kenn moomu ko woon kenn moomu ko woon donte ne jege woon na suufi jàmbur muy suuf soo xamee ne dañ ko daggaloon maamam muy mbàkke bawal eh, sëriñ bi ñëw dëkk fa gannaaw bi fi bàyyam jugee as diir mënut a nekk ak ñoom mu tuxu dem ca suuf sa ca wet tabax fa euh, ab dëkk muy daaru salaam am demee ba mu yàggaat suuf sa nekkaat ca wet ga te kenn dëkku ko kenn moomuyu ko euh, ñu daañu wax naan naan mbay dee mu dem def li ñu naan ihyaul mawaat gor ko euh, dundal ko ngir liggéeyal fa lislaam te it yéenam sëñ boo demee ci sëñ Basiiru wax na circonstance yi ko sëñ bi sance nee Mbàkke Bawal bi mu tàmbalee woote bi mi ngi woon euh, ca Kajoor waaye dafa tuxee tuxoo ñëw gannaaw bi fa bàyyam noppaloo ñëw Mbàkke Bawal euh, gannaaw as nit ña bari ba mënu faa dëkkati mu jóge fa dem Daaru Salaam bam nit ña bariyaati bam xat fa mujj fa jóge fa nag dem Touba xool lim ko fa fabtanaa tuuba fii sahraa laa maa fiha wala zaraa yawma isin wala tublagu illa bi shiqil anfus wala tuskanu illa bil inqitaaci anil insi ama alf wa salaasimiya wa xamsa baada salaasin min binaayi Mbàkke Bawal wa min daari salaam nee na gannaaw bi nit ñi baree daaru salaam mu jóge fa daw Tuubaa sanc ko ci suuf soo xamee ne amutoon ndox mutoon kenn daw fa bay kenn mënu fa àgg ci lu dul coona te it amut ay nit yu dëkk ca wet ga gannaaw bi mu euh, at mi ko sanc sax mu wax Euh, lii wane tamit ne Touba kenn mësu koo moom ba ci sax suuf si maamam moomam muy Mbàkke Bawol gi ñu maam maamam bokk ci woon euh, sëñ Bachir wax na ne sëñ Touba daana wax ne li tax mu bëgg Touba lool mooy yéeneem ju rafet ji taxoon mu mu sanc ko ndax bi ma koy sanc nee na maa rajaatu fiha li aslin saabiq du caagi ne suuf sama maam masano moom ma dem di ko yeesalaat wala rtid wala lirtiyaadi mazrain wala mara c'est pas pour des raisons économiques c'est pas pour des raisons euh, ethniques wala wala wala familiales wala dara yàlla rek wa innama hiya li ibadatillahi wahdahu jaamu yàlla rek a tax te it an iznin min nii ci ndigalul yàlla laa ko amee waxtu yaarin yàlla ma ko tànnal kon ci loolu la ko amee yàllaa ko ko tànnal bëgg faa jaamu yàlla tax it na tax man def ko ba moom ko it mooy yoon yi yàlla teg ci ne boo bëggee moom suuf da koy jënd wala nga luyee ko wala nga àbb ko wala ñu may la ko wala bu yooyu yëpp amul nag nga dem fekk fu kenn musta nekk nga dem dundal ko kon Sëñ Tuubaa fekk na ne suuf si kenn musu ko moom mu dem dundal ko yàllaa ko ko tànnal mu dem dundal ko ko ci moomeel yàlla kon loolu sur le plan juridique islamique bi ñuy sukkandiku ci moom te jàpp naa ne tamit droit yi amoon ca jamono jooja jamono yi jooja ay laman ñoo fi nekkoon akibuur i buur eh, ñiy dëkkee suuf si ñu daggal leen ñu am fu ñu dëkk euh, buur li ci des moo ko yilif ku mu bëgg a dagal moo koy dagal am na ci wet gi muy mbàkke googu maami sëriñ bi muy maam maaram la ko buur yi daggaloon amari ngoone kon ñoom cosaanuñu woon fii waaye buur bu ko daggaloon ay maamam ñoo tax ñu ñëw wetu wetu ci mbàkke waaye booba suufu Tuubaa bukk ci woon sëriñ tubaa nag ba mu demee ba bëgg a liggéeyal jaar ci anam yi yàlla maye ci la ci suuf ci ay maamam dem suusu kenn musta dëkk mu gor ko def fa euh, euh, dëkkukaay ngir li ibadatillahi ngir jaamu yàlla kon nag te it ba mu ko ba defee it jumtukaay yi sariya maye ci lañ war a moome suuf fa ko jaare mooy ihyaul mawaat kon foofu moom Euh, bu kenn wax ne sëñ tubaa tubaab tubaaba ko may suuf déedéet sëñ tubaa moo fi jiitu tubaab bi ndax moom moo dëkk ci réew mi ay maamam ñoo dëkk ci réew mi tubaab bi ab doxandéem bu fi ñëw la euh, dëkku fi sëñ tubaa ko fi jiitu moomoon suufam nag bi de tubaab bi demee ba daaneel nguur yooyu fi nekkoon moom euh, yilif lépp ëpp ñu doole moom lafi fi moo moo mooy mooy autorité état bi fi nekk bu boobaa nag kuy def dara. te bañ a am ak ñoom ab xeex wala guerre wala di indi euh, ordre public nga koy nga koy changé loo ci def war nga ci am dëppoo ak ñoom ci boobu euh, mooy sëñ Modou sëñ bi jóge na fi ba sëñ Modou Moustapha ñëw fi wala sëñ bi jóge sëñ bi mi ngi fi boobu sax ñu bëgg a tabax juma bar laaj autorisation ndax ci état lañ nekk sëñ bi bind lu leetar ba gis na lañ ci bind mustaktibu hadal kitab kaatibu hadal kitab mooy ki bindu lii lii ki bind lu bi mooy ki bind ki signé lii sëñ Mbàkke Bousso bind ko muy ñaan mu laaj autorisation pour tabax fa bañ demee ba war a tabax sëñ bi fekk jóge na fi sëñ Modou Moustapha mi ko fi wuutu euh, tubaab entreprise bi mu amalanteel ñu war a tabax tabax bi entreprise bi tabax yu mel nii foo koy tabax da nga kaa war a am autorisation non seulement waaye da nga ko war a def ci suusoo moom kon loolu laaj suuf si ñu këyital ko kon nañ xam ne euh, titre foncier bi këyit gu état di jox la ci loo moom waaye état du fekk suuf soo moomut mu la koy jox état du fekk moomeelu jàmbur mu la koy bindal tootu titre foncier titre foncier mooy titre la lay la lay jox boo xamee ne yaa ko moom yaakaar naa ñuy jàng droit xam nañ ko mooy tubaab bi mën da jël suuf si di ko jox Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa moomu ko woon wala Sëñ Tuubaa jëndu ko woon wala suñ Tuubaa moomu ko woon ci anami moomeel yi ñu xam kon loolu na leer ne sëñ sëñ Modou Moustapha état bi fi nekk te war a yoonal war a këyital këyit yi moo ko jox këyit woowu gannaaw bi ko sëñ Touba moomee mu wuutu fi sëriñ Touba war fee taxawal loo xame ne day laaj ay këyit mu lijjanti këyit yooyu ca nag ko yoon maye effectivement li mu wax ne këyit yooyu euh, euh, euh, lim sàngam la woon lim bi mu wax mën naa am noonu la demee waaye ñu xam ne nag sëñ Touba ba muy sañc Touba ak lañ gor ma jox la misaal rek bu dee borom daaru ci li ñu wax ci histoire ne ba muy sanc daaru musi dafa gor quarante kilomètres carrés yi wër daaru mus yëpp moom ñoo fa dëkk ak njabootam ak i taalibeem boo xoolee daaru man naan ak euh, kosoog euh, dëkk yi ko wër yooyu yëpp nga xam ne dañoo soreeg daaru musi daaru moxte ba ci wetu belal yooyu yëpp ci Eh, ci ci goreelam mooy ixyaaul mawaat gu yonent gu gu gu maam Cerno defoon sëñ Tuubaa na la leer na kon moom ak njabootam gi wër tu gi sañ ci Tuubaa wër ko lañ lañ lañ lañ lañ dundal ci ixyaaul mawaat ba moom ko ci seen a jox leen ko eh, état jox leen ko war naa ëpp nag kon lu yaatoo yaatu la léegi nag mu des kon yoonal ko mooy wut dem ci état bi fi yàlla teg nga mu jox lay kayit loolu mooy démarche yooyu sëñ Modou Moustapha def waaye du caagi ne nag sëñ Modou Moustapha euh, dafa fekk suuf su moomutoon euh, wala sëñ Tuubaa dafa fekk suuf su moomutoon ci moomeelug charia euh, tubaab bi di ko jox loolu na leer nañ ndax tubaab bi moomut suuf si ñun ñoo moom réew mi te sëñ Tuubaa nag bu fi amul suuf kenn du fi am suuf ndax suuf nag ci niñ koy moomee ci charia mooy dëkk fa bokk ca réew ma dëkk fa ñu daggal la fa wala nga jënd fa wala nga nga nga nga nga nga ci anam yiñ jàng ci buntu fiq sharia yi buntu fiq yi ci lañ war a moome ci moomeel yooyu dong la ko moome nag bu fekkee ne nag nanguluñ sëñ Tuubaa ak moomeelam nag baye boo mbayeen sàlleen jaween kebemeer ak euh, ngaay mexeek mbooleem ña ko moom ñu nangu ko ci ñoom ne du ñuy sénégalais kon waaye moomeel moom nii dong lañ baaxu moomeel ku ne tamit sag moomeel sañ nga tamit wut kayit yu la koy jox jàpp naa ne njabootu Sëñ Tuubaa loolu dong lañu def kon kayit yooyu am nañ ko euh, waxtu wu ne it la leen yàlla may lañ ca mën a euh, yoonal ci kayit bañ jot ca buñ demee ba war koo yokkaat ci leneen loo xamee ne ñoo moo ko ñoo ko moom te jëluñ yëfi jàmbur alal juñ moom la seeni taalibe wala seen taalibe moom ko ñu àndandoo seenu bokkeel moomeel loo ñu ñu kayital ko loolu jàpp naa ne amul lenn loo xam ne nag war na ca mën a euh, am lu ñaaw luñ ciy wax naa sant ci yàlla ndax suuf soo xam ne dañu koo dajale defar ko ba mu baax nit ñi dafa jaamu yàlla mbooloom dëkkandoo fa euh, li ëpp ci Sénégal dëkk ci taax yi nga xam ne tubaab yee ko sos ñu jóge fi ñëw ci digg réew mi dundal ko ba tey mu bokk ci capital l'islam yi capital Sénégal yëpp doole di dundal économie Sénégal loolu damaa yàpp ne sant ci yàlla lañu war def waaye nag waruñ cee ñaawal ak wax wax ju ñaaw beneen tomb bi muy wax ne nañ teqale diggante euh, titre foncier Euh, euh, ak kilifteefu ko ak kilifteefu souveraineté mooy nga xam ne état koy def loolu man de maa jàpp ne amul benn murit wala benn taalib wala benn ci sëriñ Sëriñ Tuubaa yi boole kuy jaxase ñaar yooyu moom nag boo ko jaxasee ci xelam jàpp ne ñun waa Touba dañoo jàpp ne souveraineté la ñu am moom moo ko jàpp rek waaye ñun jàpp ñu ko ndax ñun nangu gi ñu nangu souveraineté état moo nangu démembrement état yi am yépp ñu may ko ñu may leen ñu ñëw am fii ci réew am fii ci dëkk bi euh, boo demee ca Mbàkke gee tribunal baa nga fa boo demee ca Mbàkke euh, ni ñu koy waxeeti euh, préfecture baa nga fa nga dem ndaam ci moomeelu Sëñ Tuubaa sous préfecture baa nga nga ñëw ci biir Touba waaw nga ñëw kii arrondissement baa nga fa nga ñëw ci biir Touba mairie baa ngi fi te yooyu yëpp ay démembrement état la police nekk fi gendarmerie nekk fi tribunal yëpp am fi ñu koy doxal kon jàpp naa ne nag ku euh, fi def tooxi doona it sëñ bi du la ñëw di la atte dañ lay ñëw jébbal police kon loolu jàpp naa ne teqale ne nag diggante souveraineté euh, souveraineté ak tamit nag liñ naan euh, tiitre ndax tiitre nag moom bokkuñu ñaar yi te jàpp naa ne mu benn nag nit lu mu tëxat tëxat ab sëriñ lu mu tëxat tëxat ñaar yooyu du ko jéem a teqale ndax bu ko bëggoon bu ko du ko boole ndax bu ko bëggoon a boole état jëmbam du ko nangu kon nangul nañ eta loolu nag moo am nu rek jàpp ne li ñaan gimiñ gu nàcc du wax jàmm yàpp naa gimiñam mooy nàcc rek muy wax lu ko neex euh, waaye daa waroon a ànd ak ñun sant la yàlla nag bi yàlla mayee doole lislaam am ci Sénégal lu mel nii ci réew moo xam ne nag tubaab yi dañ fay ñëw ak doole muy dëkk bi njëkk a sanc ñu muy Saint-Louis ci ci lu a seen réew def fi seen doole def fi seen man-man def fi seen capital def fi seen alal seeni i jàngale def ba bëgg dee tey lañ fe defoon lépp naax saay lislaam di fi gën a am doole damaa jàpp ne àndandoo sant ndoo yàlla yàlla def jaarale ko ci jaamam yu baax yi nga xam ne dañoo liggéeyal yàlla ci yar nit ñi ak defar leen sanc ay ay ay dëkki lislaam muy doon ay tata ay ay ay ay ay ay sanctuaire ay ay ay ay ay bastion lislaam ba mën a aar loolu dañ maa yaakaar dañ cee war a sant yàlla waaye waruñu ko xabal xarab kon nag euh, loolu na leer ne ñun ñaari yi teq euh, kenn boolewut euh, entre liñ naan moomeel milkiya wa siyaada ñaar yooyu dañ koy teqale bu baax a baax a baax euh, am na yeneen tomb yu ma ci bëggoon déggoon mu wax ko ma bëgg ko tontuwaat xel mi xam naa xam naa waa fàttalikootuma ko daal